Euh, madame Bigué Ba Mbodj ñu ngi lay nuyu. ñu leen di fay. yow maîtresse euh, sage-femme nga nga jiite tamit kuréel gi ëmb sage-femme d'État yi ci senegal euh, seeni naataango yi nga xamante ne kon yoon de leen a teg gët gannaaw li xew ci opital amado Sakhir mbay bu luga ñu war a xam nag fu ñuy mujj ak yoon ci àllarba gi lan ngeen di xaar ci àtte boobu. xanaa gëm suñu justice su dëkk yaakaar ni dinañ leen àtte. ci yamale ba nga xamee ni ah din àddina bi yëpp dina xam ni lu peut-être leen di tuumaal du ñoom nëbbunu kenn ah, jàppale wuñu nit pour mu def lu bon waaye dañoo xalaat ni ah loo xamee ni dañu ko doon liggéey ci équipe ñëpp nekk fa di fa di fa ñu jël ci ñeenti tëj leen jël ñeneen ñaari bàyyi leen ndax ay stagiaire lañu euh, même bu fekkee seen dañu nekk en état ah yaakaar nañu ni eh, àllarbaak jàmm yàlla dinañu suturaal ba nga xamee ni ah yoon dinañ def liggéeyam niñ ko yaakaare niñ ko gëmee ba nga xamee ni suñu naataangoo yooyu dinañ delluwaat ci seen kër hmm. ndax liñ leen di tuumaal dara du ci nekk hmm. lu mooy grève yi ñaxtu yi ngeen ci doon amal ban xeetu taxaw ngeen def seen naataango yooyu. donc grève yi il faut encore une fois ñu leeral ko. Hmm. syndicat yi ñoo doon grève syndicat yi nekk ci santé yépp ñoo grève ñii grève nañu. Euh, vingt vingt vingt et un vingt deux ñeneen ñi grève générale le vingt et un te boobu docteur ba ci balekat ñëpp ñoo doon grève te suñuy ñooñ sage-femme mbir mi dafa tax ni ñu gis ci réseaux sociaux yi ñu ñuy jot ay woote di leen wax dinañ leen fekk fa ngeen nekk di leen rey ndax il faut ñu rey leen pour ngeen euh, respecter nit ñi di wax nit ñi bu ngeen di dem maternité yóbbaale leen paaka ci seen saak yóbbaale leen ay lañset yóbbaale leen ciseau raw leen buum ba mu dëgër ngeen dugal ko si donc menaces yooyu ñu doon tax tax na ñu ni ñun suñuy sage-femme bis nga xam ne waa kër docteur yëpp ñoom banque seen loxo duñ leen bàyyi ñun nekk ñoom kot ci fenn foo xam ne nit mën naa jóg foofu faagaagal leen léegi nan fexe ba nga xamee ni accouchement yi bu amee dinañ ko def ci centre de santé boo xam ne am na gynécologue wala hôpital boo nga xam ni kenn du ci faatu ci jour boobu parce que ñëpp li nga xam ni plateau technique bi ñuy wax bi ñu soxla woon pour loolu dina am mm-hmm. hôpital de Kolda sage-femme ba garde woon benn waay ñëw na ni daf koy rey parce que salle ba jabaram entrée amul amul làmp lampe ba dafa burle mu ne alfook mu rey ko donc loolu lañ doon bañ moo tax ñu teel a jóg ñun ñun tamit nanu nanu profité si grève bi nga xam ne syndicat yëpp ñoo ko grève pour ni suñu waa kër yi bis bi nan leen aar mais pare wax nag ba àdduna bi yëpp xam ne sage-femme yi liñ doon marche le 7 mars di wax ni dañ leen di fekk ci seen biir bërëbu liggéeyukaay di leen jéem a sàkku di leen fekk si seen bërëbu liggéeykaay di leen dóor di leen fekk ci seen bërëbu liggéeykaay di jéem a euh, kenn ki faajal waxuñu ko sax ci nasaraan dañ koo jamate ba mu mujj réanimation pour parce que dafa amoon ku ñëwoon bëgg ko violé mu bañ ndax dafa yore këram borom këram yore ay njabootam mu jaay ko bakkanam pour loolu ñu ni nag duñ ko te booba ba mu amee kenn jógul du autorité sanitaire du association yi def ak yelleef fa jigéen ñi kenn waxu si ñëpp ci noppi comme nag ñun ñun rek la amuñu kenn ku ñu ku jàppale ci bis boobu ñu profité nan la ñuy rawale suñu ay ay ñooñ ba nga xamee ni nit du jógee fale rek ni xaar ma dem faat leen. Mm-hmm. donc loolu moom loolu lañ ci defoon. Mm-hmm. ci bisu le 21 avril. mais nee nañu tamit ni seen grève boobu muy journée sans sage-femme ci maternité am na li mu jur ni loraange ndax ñu ngi doon wax sax am na ñu ci ñàkk seen mbakkan kenn ñàkku ci bakkanam jigéen bi faatu démb. ma nga faatoo hôpital de Louga te li tax mu faatu moom mooy dafa manqué deret te deret kenn du ko defar deret kenn du ko jaay deret nit moo koy maye te Sénégal boo jëlee fukki jigéen yi faatu ci wasin juróom ñett ya mbirum nàcc nàcc moo leen di faat te deret amu ci ci ci ci ci banque de sang yi gis ngeen ni loolu bi mu amee danoo relayer di wax ni danoo dafa am ku soxla deret nan ko dem may ji waaye gisuñ kenn ku jóg may ji donc il faut que Sénégalais yi itam ñu xam ni lii mooy rey jigéen ñi et na jig na waa Sénégal yëpp jóg dem ci biir centre euh, centre de transfusion dem ci hôpital yi maye ji deret ndax deret boobu nag moo mën tax ñu damu beneen bakkan beneen jigéen bi ñu woon dafa faatu ci biir ambulance te mbirum euh, grève bi te ñëpp yàlla leeral na lépp ne kooku fa muy faatu du du kooku ëmbul tollul ci ëmb te du ci du sa boobu sax la la la la amee problème ndaxte grève ñi syndicat yëpp ñoo grève woon mais pas sage te kooku feebar ba ko jotoon sax du liggéeyu sage-femme donc ñuy wax encore une fois ñi génn di wax ñu ngi jóg toujours ci yàq deru euh, sage-femme yàlla moom mi ngi leeral bis bu nekk ñëpp di ci teg seen bët te kenn du ko mën a weddi. Hmm. mais madame Mbodj est-ce que yëf yi dépassé wul léegi yàq der parce que ba yëf yi xewee ca hôpital Amadou Sakhir Mbaye ba léegi témoignage yi dégg nañ ko ñu bëri ci ay soxna ñi raconter seen histoire lu ñu dund lu métti ci wàllu accueil ak traitement ci maternité yi est-ce que loolu tamit du lu dëgg fii ci Sénégal. duma bëgg nit ñi xam ni. ay mbirum accueil mbirum comportement nit ki. du sage-femme a tax mu war a mën a am yenn jikko yi parce que nit ku nekk boo ñëw di dugg ci formation sage-femme da ngay indaale sa yar ban la yare seen kër da ngay indaale la nga tàmm di ko def sa kër da ngay indaale lan la lan la lan la lan loo xam ne ab sab peut-être ndono la sax ci biir mais ñun sage-femme yi que ce soit ci formation bi boo nekkee école que ce soit ñun association des sages wala ñuy maîtresse sage wala ñun ñu nekk ci ci ci di liggéey ci santé loolu dañ ciy taxaw fu nu nekk heure bu nu mësaan a dégg ni nit wax na ni def nañ ko nangam jóg nañu wax ak suñu ñooñ moo xam dañ leen di dajale wax ak ñoom moo xam dañuy nekk ci journée sage-femme bu ñuy organiser chaque année wax ak ñoom moo xam dañuy def ay vocal di leen ko yónnee ci whatsapp bi pour ni leen dégg nañu nangam ak nangam nangam sage-femme warta doxale nii sage-femme nii la war a defee sage-femme nii la war a defee muy loo xam ne xeex la boo xamee ni ñu ngi ci liggéey fu fu nu toll te heure buñ ko déggee déggnu ko rek ni lu tax nit ñi wax ko de dégg nañ ko wax leen ni leen mu amak mu ñàkk am yépp na ngeen fexe ba euh, li li nit ñi di wax bokkuma sax Euh, euh, euh, du du man koo bokk ma saa sa gën na nit ñi fexe ba nga xam ne ku nekk fooy liggéey nga xam ni yow boo xasee sol sa mbubu saa saam dafa am lu la war te loolu nag dañu bëgg mu leer di dalal xelu askan wi yëpp xam ne ci la nuy nekk di ci liggéey chaque jour te pour pour pour li koy firndeel mooy ñun depuis 2018 dañoo génne la ñuy tuddee sage-femme modèle maanaam sage-femme boo xam ne da koy teg wan ko ñeneen sage-femme ni leen sage-femme la war a ñu tuddee ko sage femme modèle diamant or argent ak bronze te sage femme boobu liñ ci liñ koy gën a tànne mooy ki nga xam ni askan ba muy liggéeyal communauté ba mu nekk am naa ñoom jàmm am na ñoom ay relation yoo xamee ni ñoom ñemee nañ ko te dinañ ñëw ci moom fu ñu toll également koo xamee ni ay kilifaam xam nañ ni liggéeykat la du daw liggéey te mi ngi def luñ koy wara également koo xam ne ci liggéeyam wane na ci xarañte boo xamee ni képp ku mu tiim lépp lumu ci mën dina ko ci def te fu mu toll mi ngi jéem a xool lu koy yokk ci mbirum xam-xam ak ci nga ko xarañte hmm. mais également koo xam ni même bu du mbirum mbirum faj bi mi ngi xool naka la mën a jàppalee ay jigéen ya muy liggéey ya mu dëkkandool te fa muy liggéey naka la mën a jàppalee gox boobu pour que nit ñi xam naka lañu war a lekkee nan lañu war a tërale seen dund ba nga xamee ni duñu am benn comportement boo xamee ni mën na tax seen wér-gu-yaram sanax donc loolu ñu ngi ci pour dire que xam nañu li dégg nañu li nit ñi wax ñu ngi ciy bàyyi xel te ñu ngi ciy liggéey lu nu mën pour que bu doon suñu sago képp koo xam ne jóge nga dem ci biir maternité boo fay génn ngaa xam la yàlla di des di di def waaye di nga xam ne kat ña nga fa fekk def nañ seen kéemtalaay kàttan pour loolu mën a nekk. Eh, gannaaw kon liy xew ak liñ ci dégg témoignage eh, jafe-jafe yëpp lan moo ci say pexe bu ko defee eh, secteur bi wala koor bi ci boppam mu gën a ñoŋ pour non seulement seen njëriñ yéen mais njëriñ tamit askan wi. ah dañu wax ni il ñu gëstu nan lañuy tàggati tàggate saa saa mi ñu xool fan lañ leen di jàngale ñu xool kan moo leen di jàngal ñu xool si yenn anam nan leen di jàngale ñu xool fanuy nekk di jàngale est-ce que nan leen war a jàngale lan leen war a jàngal kaka war a jàngale ma nga fa également nañu xool également naka la ñuy jëlee nit ñi di leen yóbbu liggéey ci kër docteur hmm. est-ce que ñooñu di fa dem am na nañu lijaasa bu leen mën a wa may ñu ñu mën faa nekk am nañu xarañte am nañu xam-xam am nañu mën-mën dem liggéey loolu ba nga xamee ni bu ñu ñëwee ci biir euh, euh, hôpital yi wala ci biir euh, waa kër docteur yi kër docteur yi dinañ leen mën a dinañ mën a jëriñ kër docteur mais dinan mën a jëriñ également population bi nekk noonu donc loolu lañu war a mën a soxla mais également ñu mën a matale euh, euh, li si suñu kémtalaay kattan ak nguur gi jàppale pour que nit ñi ñu mën a recruter euh, ay ay ay sage-femme yu doy ñu recruter ay yeneen ay gynécologue yu doy ñu recruter yeneen personnel yoo xam ne ay faj kattan yu am ay diplôme surtout nag ñu recruter leen yóbbu leen ci biir gox goxaat yi ci biir kër docteur yi fu mu mën a nekk ci Sénégal ndax paj mbirum paj ñëpp a ci yem bokk atte ka am alal ak ka ñàkk alal euh, mën nañu am ab xayma madame la présidente ci euh, limu sage-femme yi nga xamante ñoo nekk ci bërëbu fajukaay ci Sénégal ndax bëri na ñuy dégg ñuy wax doyuñu doyuñu ñaata ngeen doyunu doyunu ndax boo xoolee ñi nga xam ne ñu ngi ci nguur parce que munoo xayma lépp noonu ndax dafa am ñu nga xam ne ñu ngi nekk ci biir euh, kër docteur yi di liggéey te nguur gi tegu leen fa maire ba moo leen jël wala xaalis koppar bay génn ca malaaje lañuy ñuy fayee lan leen di fayee donc ñun association des sages-femmes li ñu mën suñu xayma xayma bopp ñu ngi toll ci presque euh, juróomi jun ñeenti junni sage femme ak juróom fukk ak lu topp loo xam ne ñu ngi ci biir structure yi di liggéey mm-hmm. ñoo xam contrat moo leen fa yóbbu nguur gee leen signal contrat moo xam nguur gee leen recruter fonction publique moo xam euh, comme ni ma leen ko waxee euh, contrat leen fa yóbbu am na ñoo xamee ni sax am na jàng nañ ba am seen diplôme ñu tudde leen ay stagiaire ñenn ñi ñu leen di jox paasu kese paas yoo xam ne sax fukki junne hmm. wala ay juróomi junne parce que ñooñu dañoo jàng ba pare am seen diplôme am seen xam-xam mais yàlla def amuñu liggéey mais bëgg li ñu lig bëgg bëgg métier bi dina leen tax ñu dem waxuma la biir Dakar rek mais fu sore ci biir réew mi danañ leen fa fekk ñii ñu leen di tuddee ay sage-femme communautaire ndax commune bee leen di fay ñii ñu nekk tuddee leen ay sage-femme stagiaire koo xam ne jàng na ba am diplôme ba ñu xool ko ne mën na liggéey ñoom ñoo fi nekk mais ñun association rek ñi xam ne ñun bokk nañ ci ñun euh, ñu ngi waaj a jege euh, juróom benn junni sage-femme yu nga xamee ñu ngi fii ñii ñu ngi chômer ñii ñu ngi nekk ay stagiaire ñenn ñi ñu ngi jël mais di wax dama ko fàtte également si nasaraan Sénégal dañu ni OMS mooy kuréelu at dijjanti mbirum wérgu yaram ci àddina bi yëpp dafa ni pour wérgu yaramu ndey ak doom mën a ñoŋ benn sage bu nekk dafa war a toppatoo ñetti téeméeri jigéen yu toll ci ëmb ak wasin mais Sénégal fi ñu toll nii benn sage bu nekk mu ngi toppatoo junni jigéen ak ñeenti téeméer ak fukk ak ñeent donc loolu rek dafay wane ni lim bi ndaw na ndaw boo xamee ni pour que faj bi mën a jaar yoon pour que toppatoo bi ku nekk boo soxlaa nga taxaw ka nga borom alal ka nga ñàkk alal ka nga nekk Dakar ka nga nekk àll bu sore ba dañuy soxla ñu gën a yokk limu sage-femme boobu naa mënunoo yéegi ci benn ci ñett ci ñetti téeméer waaye au moins ñu mën koo wàññi ba nga xamee ni même bu fekkee ni kenn la ci juróomi téeméer wala juróom benni téeméer dina dinañ gis bu baax naka lay ñoŋale faj bi naka la nit ñi gën a kontaane ci faj bi nan la nit ñi gën a jote ci faj bi jamono dafay dox ba léegi ñuy wax lañu ñu duppee accouchement humanisé bëri na ay ponk mais bi ci gën a fës bi ma jàpp bokk mooy bu jigéen di mu ci mu am euh, ki mu tànn ki ko jege mu ñëw teewee ko loolu ndaxam mu ngi dox Sénégal ak ban njeexital la am euh, ci li nga xamante ni moo jëm ci soxna yi mucc. loolu mi ngi mi ngi dox ci Sénégal te muy muy ndakaaru fii que muy ci biir gox goxaan yi tamit boo fa def demee fekk na commencé nañ ko bu yàgg waaye dama bëggoon leeral mbir mi bu ne accouchement humanisé du ko dafay am mbokkam bu ñëw teewal ko accouchement humanisé moom mooy dañuy delluwaat ca cosaan te ñoom maam nan daan wasine nga xame ni biir salle d'accouchement ba nga xame ni fa ndaw si wasin dootul nekk salle boo xamee ni ay jigéen yu bëri ñooy rang dañ koy def ay pàcc pàccal ay ay néeg néeg su ndaw soo xam ni nda kii wasin rek moom moo fay nekk ànd ak ki mu tànn pour mu jàppale ko mais foofu tamit dañ fay lal ay ay ay ndes di fa def ay ay puf yu ñuy toog di fa teg ay njoowaan yu ñuy mën a njoowaanu ay buum yu ñu mën a jàppe parce que euh, euh, gëstu bi dafa wane ni léegi jigéen pour mu wasin soxlaatul bu njëkk ñun ñun ñii suñu temps ñu doon wasine nga xam ne da nga ñuy tëral ci taabal ñu tëdd fa diirub suñu mat léegi nit kii matu day mën a doxantu nit kii matu day mën a lekk nit ki matu day mën a naan nit kii matu day mën a tëdde wet pour pour buy wasin du tolloo ci puusal mën na tëdde wet mën na tëdde ñaaxaanaay mën na jonkat mën na euh, am position yi nga xamee ne bu jëkk comme ni wolof daan wax da ngay sukk jur nit sax mën na sukk léegi buy buy buy am doom loolu loolu yëpp moo tudd accouchement humanisé mais du caaga ni rek dafay am kuy nekk ak moom te loolu tamit njëriñ bi ci am moom mooy ñi ànd nit ki mu ñëw di wasin nit ki dina am ku xam ne ku miin ku xam ku ko dend ak moom loo xam ni aadaat cosaan la yoo xam ne ma ngi koy def mais également dina tax diggante saa sàmbay réew li accompagnant ba ak ka muy réew li dina rata ndax ku dinañ bokk ñoom mbir mi xam nan la mat mel xam nan la ñuy réewlee xam li ci réew li yépp ba nga xam ni ku génn ci foofu boo waxul jërëjëf doo ma sa xarab kenn ndax xam nga lan la dund nga ak nit ñi da nga bokk ci ci ci ci matu bi da nga bokk ci réew li bi ba nga xamee ni lu ñëpp bokk nag ku nekk a ngi yow yaay njiital kuréel gi ëmb sage femme ci Sénégal ngay maîtresse euh, sage femme madame Bigué Ba Mbodj ñu ngi lay gërëm bu baax. ñu ñoo yore di di leen sant di leen gërëm.